à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale à l'endroit du ministère de l'enseignement supérieur, à l'endroit en tout cas des inspecteurs d'enseignement, à l'endroit des directeurs d'école, à l'endroit des maîtres, même des surveillants. Le message est tombé. Mais ça, c'est l'État, Moustapha. Quand je parle du ministère de l'Intérieur, je parle de l'État. Quand je parle du ministère de l'enseignement, c'est l'État. Parce que c'est eux à qui on a confié l'enseignement et l'éducation des enfants. Je reviens sur les enseignants, sur les directeurs d'école, même sur les parents d'élèves. Et là, Tchirne vient de donner une information très importante. entre en tout cas de s'installer dangereusement et même perturber la scolarité des enfants. Et là, Tchernobyl dit qu'il est tout à fait disponible et disposé à partir de maintenant de répondre à la sollicitation et de venir soigner gratuitement tous ces enfants qui souffrent de Guinée Maïmouna. nee na daf koy def avec zéro franc laajul dara il suffit de mettre les conditions pour qu'il se déplace avec son équipe pour faj loolu nag defe naa ne la nga xam ne ni tey vraiment tey pëñ ne boo ko doon ut ci àddina bi yëpp doo ko gis tey mu ñëw ne dama la koy jox tey laaju ma la dërëm donc la balle est dans le camp de l'État du Sénégal quand je parle de l'État du Sénégal Moustapha ministre bi mu ngi ci enseignement supérieur maanaam directeur d'école yi parents d'élèves yi surveillants yi bàyyiwuñu kenn kon nag Seydou Moulay Sow encore mille fois merci tey defe naa ne askan wi tey amee nañ la njukkal mënuñu la fay parce que damay wax ne tey li ñu nit yëkkati di ko la ko jox fayu ñu la il faut que ça soit clair fayu ñu la kenn mënu la fay mais nag ki nga xam ne moom mooy borom mbaar mi te wàcce la ci yëpp la mission bi moom rek moo la mun a fay yàlla na la yàlla fay sow jërëjëf kon naa ni Abdou Aziz kon xanaa dañuy bàyyi sëriñ bi rek euh, mu bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay. waaw jërëjëf jërëjëf Moustapha jërëjëf Ngone jërëjëf euh, doyen Aziz. kontaan bu baax sant suñu borom bu baax julli ci yonente bi ndax xam ngeen Thierno léppam yàlla ak yonente bi la nee naa leen su ma lépp yàlla la ak yonente bi xam ngeen loolu dèjà kon nag doyen message bi nga lancé noonu euh, vraiment euh, man maa ko wax euh, ndaw yi dañu war a jàng ndaw ñi ëllëg dañu war a yor réew dañu war a yor suñu réew kon nag man Thierno Moule Sow lan mooy sama njëriñ ci dëkk bi jàppale askan bi jàppale réew mi kon école yi jinne may mun a day nekk di rube ci école yi man mu Moule Sow dinaa régler loolu dinaa ko lijjanti waaw loolu moom macha allah du ma ci fayeeku dara école bu bu jinne yi sonal nañu ma woo ak sama équipe ma ñëw jinne yëpp ma jàpp leen tuubal leen xale yi continuer seen jàng ci jàmm ak salaam sino seen seen seen euh, année bi mun na yàqu waaw waaw loolu nag kon comme ni nga ko waxee rek waaw ñi nekk ci école yeeg yooyu parce que di dem di daanu ci école bi di perturber di sonal ñi ñeeg yooyu jinne yi di ruube di yàq euh, jàng xale yi loolu macha allah mën na dañ am na solution solution bi maa ngi nii man mu Moule Sow dinaa leen jàppale ci loolu école bu ñu ma mën a woo nag fuñ mun fuñ ñu mën a woo maa ne la ci ci ci ci ci ci ci Sénégal ci région bi sous région bi fu ñu mën a woo dinañ dem ak suñu équipe macha allah. jërëjëf kon defe naa ni kàddu yooyu am na solo. Euh, nga xam ni euh, moom la le khalife général l'empereur le phénomène de l'univers le roi médecine traditionnel du monde the king of the king euh, noonu la dugg see tey euh, muy le retour en force message bi wax na ko léegi mooy bi Abdou Aziz Diagne wax te ñu jëlee ko ci kàddu sëriñ bi mu nekk message bu am solo kon nag am nañ mbégte saa su ne di ànd ak yéen sur la TMS bi xanaa di leen jox dig daje ci kanam ngeen teg seen loxo ci kanam ci yeneen i euh, waxtaan ak ci yeneen i reportage lépp jëm ci le xalifa général di ji ceex Alaaji mu Moule Sow